Euh, ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen mbokki jàkkaaruñ ci diñu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi leen di ndokkeel baax a baax ci di leen jaajëfal ñu wéyal ba tey suñuy reportage ànd ak yéen fii ci euh, Ndar ci wàccaayu ñaari rakka yi kon moo tax nag euh, ñi ngi ki nga xamante ni bii kenn ku nekk xam na taxawaay bi nga xamante ni bii am na ko di Serigne Makhtar Faye yëre communication ak presse ci kuréel ñaar rakka yi Serigne ñu bëggoon a xam rek. Euh, taxawaay bi nga xamante ni kuréel Ñaar Rakaa yi am nañ ko ci wàllu communication lu jiitu tey ak tey ak itam ba ngeen tàmbalee liggéey bi ren ak léegi fan ngeen ci toll. waaw jërëjëf euh, sëñ bi dañ leen di nuyu di leen ziare di leen dalal ci dëkk bi di Ndar Géej euh, li nga laajte nag sawar naa ci tontu bu baax a baax ndax xam nga ñun taalibe sëñ Tuubaa mhm. ci ndigal rek la ñuy sëñ Touba daf fi ñëwoon le 5 septembre 1895 euh, borom ndar woo ko fi waaye bi mu ko woyee sëñ Touba daf fi julli ñaar rakk yoo xam ne yi ñaar rakk yi ndax sëñ Touba fu mu mës a dem rek dafay julli ñaar rakk waaye ñaar rakk yi mu julli ndar nag bokkut ak ñaar rakk yi mu julli feneen ak feneen ñaar rakk yi mu julli fii dafa bëggoon a woon nasaraan bi rek ne moom yàlla kenn la yàlla dañ ko doyloo war a doyloo yàlla dañ ko war yaakaar yàlla a loolu moo tax sëñ Touba julli woon fii ñaari raakaam yi nag le 5 septembre 1895 am na nag ay at yoo xam ne yi jàll na bi ñu demee nag ci sëñ Abdou Lahad Mbacké wax ko daal ne ko bu ñu sañoon mbir mi ñu ko màggal euh, at mu jot sëñ Abdou Lahad Mbacké ne lii day de yàlla suñ borom dafa def ci muuroon suñu ay bët waaye gannaaw yéen la ko suñ borom jagleel nag jox naa leen ci ndigal te bu ngeen koy def ngeen di ko tàmbalee bésu alxemes te bés boobu leen ngeen jaglee la ko Maam Jaara Buso boobaak léegi nag at mu jot danañ def ay programme yoo xam ne nii danañ ci tànn bés boo xam ne bii dañuy màggal jigéen ndax ku wax lislaam wax jigéen loolu moo tax nag te jigéen nag buñ koy wax ci yoonu sëñ Tuubaa bi xel dem ci soxna Jaara Buso loolu moo tax ñu bëgg a jël jëfe ndigalal sëñ ab Lahad loole di ko màggal at mu jot di ko ubbee ak ngontal maam Jaara Buso buñ ca jógee it am na bés boo xam ne bii bésu alxuraan lay doon ndax liggéey bi liggéeyu sëñ ku wax sëñ Touba wax alxuraanu karim moo tax dañ ciy tànn ñaari bés yoo xam ne bés bu njëkk bi dañuy jàng alxuraanu karim ci jumaa yi ak jàkk yi euh, ngoon gi dana fekk nag kuréelu ñaaraaka yi jàng ñetti téeméeri kaamil ak fukk ak ñett euh, fële bi ñu àttee sëriñ bi ba noppi yóbbu ko fa mu di toolu buur jardin d'essai foofu lañ koy tëjee at mu jot ànd ak doomu sëñ Mourtada Mbacke sëñ Moustapha Mbacke ca suba sa nag lañuy woo bépp sëriñu daara boo xam ne bii yaa ngi ci diwaanu ndar ak ndongoy daara yi ñu di leen neexal di leen sargal te alxuraan rek tax buñ ca jógee dana am bés boo xam ne bii dañ koy tuddee ay mag ñoo xam ne ñii liggéey nañ lu lu ci lislaam dara ba nga xam ne bii nit ñi dañ koy jëfloo ndax euh, sëñ tubaa daana wax ne gudd fan du am téeméeri at rek wala juróom-ñetti fukket waaye gudd fan mooy nga liggéey lislaam loo xam ne lii ëllëg gi si biir Eh, nit ñi danañ ko jëfle loolu nag moo tax at mu jot ñuy tànn kenn koo xam ne kii moom la ñuy tuddee eh, parrain bi loolu daal ci ci ci tënk mën nañ ko wax a gum mel ni yaa ngi waajal daloo peres bu bare bëri ndax journaliste nekk ci Sénégal mën na wax sax àdduna fenn fu nekk nit war na faa bàyyi ko ci organe de presse yi mën a ñëw fekke si eh, xew-xew bii yan matukaay ngeen jël ci wàllu ñoŋal seen ab liggéey ñoom ba ku ñëw soo bëggee envoyé envoyé soo bëggee woote woote la nga soxla ci information itam nga mën koo jot ci heure ba nga waaw xam nga at mu jot euh, dañuy def euh, CRD spécial ak euh, gouverneur CRD bi mu mujj woote mi ngi ko woote woon altine le 13 juillet 2018 la ko woote woon fii ci gouvernance ñu woo ci chef de service yi nga xam ne yëpp mën nañ jàppale kuréelu Ñaar Raaka yi waaye chef de service yëpp ñoom jël nañ ay engagement ndax waxtaan nañ ci ak ñoom ci wàllu set ci wàllu ndox mi ci wàllu courant bi ak surtout ci wàllu kaaraange gi ndax lu toll ci ñaari million yi doomu aadama ñu ngi leen di séntu lu jëm ci wàllu presse bi bu ñu toogee gouverneur waa Sonatel dañuy taxaw euh, opérateurs yi yu yu mel ne Tigo yu mel ne Orange ñoom ñi ak ñoom ñëpp dañuy taxaw ñu ne leen daal bu ngeen ñëwee bu nu organe de presse yi ñëwee journalistes yi ñëw nan leen yaatal ba nga xam ne bii. maison de presse lañ bëgg ubbi ba nga xam ne yéen bu ngeen ñëwee da ngeen fa yaatal seen liggéey da ngeen fa liggéey liggéey bu mën a mu mucc ayib ñi ngi liggéey nag ak euh, rajo yi nga xam ne yii ñoo nekk fii ci ci dëkk bi nekk ak ñun dinañ liggéey lu lu mel ne rajo fréquence Teranga lu mel ne rajo RTS moom suñ partenaire officiel la di liggéey ak Dunya FM di liggéey ak Sud FM ak yeneen rajo yi nga xam ne yi nag dañuy ñu jóge tuuba wala ñu jógee Ndakaaru waaye daal mbir mi nañu xam ne mbiram communication la ndax dañu toll jamonoy communication lépp looy def te de amul communication nit ki du ko nit ki du ko xam te am na foo xam ne fii yéen yéen ñu mën a dimbale yóbbu fa li nga xam ne lii ñu ngi koy liggéey ci biir ndar jëm ci kuréelu ñaar rakk yi. ndax ci wàllu communication tey kon ni ñu wax ñëpp la ngeen tënkoo ca CRD ba ñoom jëfe nañ ko ba yéen ñi nga xam ne ko ŋànk yi surtout nga yore ko euh, euh, sa xel dal na tey. waaye suñu xel dal na ndax euh, le 13 juillet bi gouverneur euh, euh, monsieur Amadou Diop présider mbir mi ndax gouverneur ci boppam dafa demoon penku waaye chef de service yi engagement yi ñu jëloon madame le préfet moo koy topp moo tax moom dafay organiser ay CDD trois jours yi nekk pour xam matuwaay yooyu leen chef de service yi jëloon fan lañ ci toll waaye ba léegi suñu xel dal na ndax ba léegi amaguñ benn rëq-rëq-rëq boo xam ne bii bokkoon na ci matuwaay yi nga xam ne chef de service jëloon nañ su fekkee dalukaay ci wàllu presse beeg seen hébergement ak yu mel noonu ndax lépp euh, féete na boor yemb na. waaw daluwaay yi moom ay ay xeetu daluwaay dañu bëri ndax euh, mbàkki mbàkki yi rek ak ñi nga xam ne ñii ñoom lañ tuddee parrain bi jëlal nañ leen 200 chambres deux 200 chambres hôtel jël nañ ko bokkut ak nag yeneen yeneen euh, fii ñu nekk rek. jël nañ fi ñeen fukki chambre ak ñett muy roña bii rek jël nañ fi ñeen fukki chambre ak ñett sans compter nag yeneen hôtel yi ci dëkk bi yëpp yëpp ba nga xam ne bi daal li ñuy wax rek sëñ Touba moom kum fat doo fanaan biti lu jëm nag ci wàllu presse bi da ngeen di jokkoo ak ku ñuy wax sëriñ Njeri Ñang sëñ Njeri moom mooy magu sëñ ministre ma Madické Niang moom lañ dénk wàllu hôtel yi moom bu ngeen ñëwee jokkoo ak moom incha allah moom moo leen dalal ndax ku nekk dafa am pàcc bu ñu la féetale donc waroo dugg ci sa pàccu pàccu pàccu morom. Ah, loolu am na solo kon euh, lan ngeen mën a tënk rek tey ci nii euh, yéen euh, ci impact bi nga xamante ni bii mbir mi am na ko ci ndax communiqué ngeen ba ñu ngi def yaakaar naa su ma juumul. Euh, benn marché bu nga xamante ni bii dañ koy def ngir euh, euh, wàccaayu ñaar raaka yi mel ni mairie bi la ciy gagné yéen tey ban gis-gis ngeen am ni mairie war na ko jàpp wala tam war koo jàpp muy ñi yàlla dénk teraanga ci dëkk waaw xam nga xam nga gis-gis yi maanaam impact magal gi dafa dafa bari ay impact d'abord am am na impact religieux ndax magal gi dana tax ay touristes ñëw fi donc bo loolu aussi impact religieux la euh, magal gi dana am impact euh, financier maanaam impact économique ndax euh, dana am na marché boo xam ne sax dañ ko tuddee marché ñaari rakk fi mu nekk nii bépp koo xam ne kii am nga njaboot da ngay daaj sa condamné bu magal gi ñëwee ngay ubbi condamné boobu leen ngir waajal ubbite école bi ñu bi ñu jëm ñoom ñëpp fi mu nekk nii après magal gi dana am weer woo xam ne wii képp ku nekk ci ndar dangay dem ca marché boobu di di jënd ak jaay ba commerçant yi nga xam ne si dëkk nekk nañ ci dëkk bi sax dañuy mujj mer dañ naan marché boobu nañ ko tëj marché boobu nañ ko tëj xam nga kooku aspect aspect économique la. am na aussi aspect aspect historique parce que euh, magal gi dana tax euh, ñu xam démb ñu indi démb ndax génération yi euh, xamuñu woon ni démb tëddee te mag ñi nga xam ne ni nekkoon nañ fi démb dañoo tegoon seen tànk fu baax ba am lu baax loolu moo tax. ñuy indi waat démb bu ñu ko indee démb génération yi nga xam ne yi dañu nekk ci jamono jooju lu lëndëm dana danañ xam léegi fu ñuy teg seen seen tànk. waaw kay yan kàddu ngay tàggatoo. waa di leen sant rek ak gërëm ndax ni ma ko waxee woon ndax ñun. Euh, wax rek lañ man waaye suñu wax yéen ko mën a jël yóbbu ko foo xam ne fii euh, euh, ah, keneen keneen dina ko dégg kon kuréelu ñaar raaka yi ci njiital sëñ Ahmed Fall du def la du sant leen xam ne daal màggal gi moom màggalu lislaam la du màggal ak kenn ñun dañuy jàpp fii rek yéen ngeen jàpp fii yéen it ci membre kuréelu ñaar raaka yi ndax yéen ci communication presse ngeen bokk jërë ngeen jëf te sëñ Touba rek tax. jërëjëf Serigne Makhtar Faye ñu ngi lay sant bu baax yow tamit di fàttali moo amee lépp lu jëm ci wàllu presse communication. di yëngu ci euh, liggéey bi jàppale Serigne Ahmed na ci kuréelu ñaar raaka yi macha allah am taxawaay bi am solo boo xam ne am na ko ci ni mu ko waxee euh, ci rajo yi ci télévision yi ci site internet yi waaye tam ci presse écrit bi fenn fu ci nekk mu ciy dem di a euh, feeñal gis-gisam ak yéeneem waaye itam di leeralaale itam kuréelu ñaar raaka seen taxawaay ak seen tolluwaay ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di sant mbooleem ñi nga xam ñi nga ànd ak ñun sëñ ci caméra bi waaye itam ki nga xam moo koy réalisé di ngañ Fallou Diagne wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.